waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax alors euh, maa ngi yëkkatu sama kàddu yi ci suba bi pour dellusiwaat ci li xew démb ci conférence de presse bu Yewwi Askan Wi ndax euh, am nay kàddu yu ma fa yëkkati euh, jëmale woon ko ci président Macky Sall président de l'APR nekkoon kàddu yoo xam ne romb na wax dëgg yàlla fi ñu ko bëggoon a yemale. Euh, ñu bëggoon a tey wax ni euh, un patriote bu defee erreur ci li jàpp euh, nitu ku ku ku am diine ku ñu yar ci diine bu defee njuumte da koy nangu wax dëgg yàlla njuumte la de notre parce que dépassé na moo tax ma bëggoon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Macky Sall la APR may jëmale ko également ci Sénégal yi nga xam ne ñoo ñu déglu démb tey li ñu wax euh, naqari leen lool ba jot nañ ci information yu bare bare euh, bare donc mu nekkoon kàddu bi nga xam ne moom lañ bëggoon yëkkati ngir jégalu ci baax a baax a baax donc euh, je voudrais personnellement Birame Souleye Diop revenir sur une, séquence qui s'est passée hier lors du point de presse de, de Yewwi Askan Wi. Nous avons euh, eu des propos à l'endroit de Macky président de l'APR, qui ont dépassé nos intentions. En tant que patriote, en tant que simple croyant, euh, quand nous commettons euh, une erreur à l'endroit d'une personne, je pense euh, le mieux indiqué est de l'accepter. et de présenter des excuses. Voilà pourquoi je présente humblement mes excuses. Mais également, je présente ces excuses à tous les Sénégalais, à tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, pour nous dire vraiment que nos propos, euh, pour cette fois, ont dépassé euh, ce que nous devons en faire. C'est la raison pour laquelle nous échangeons avec vous pour le dire. Euh, ces propos ont été au-delà de nos intentions. Donc ce sont les excuses que nous voulons vous déballages, respect, respect à votre compréhension à tous. Merci.